joxoon baabu. nan ñu may jàllale morom bi. boo yoroon mu di ji ñu jëfandikoo morom bi. waaye nit ñi jëfandikoo naa sama bopp àdduna ak àllaaxira loolu ma jëlee ma ne ko loolu kon garab yi ñu gën a xamante ni du joxe nee na boobu nekkoon ni lu juróomi ñeneen waaye bu ñu liggéey kàddoom rek xam ni kii yoo xam ni du sëriñ sa sama mën a wax nee feeñ ni sama kàddu feeñ ni sama jëm ndax daa jël woon ni moo yor ci dabaat nekkoon na yoon newul wala nit ñi ku war a wax ci barab bi waaye dama yoon na ci nit ku ne wax ñu ngi déglu waaye ñu ngi woon di nekk boo xam ne da ngay wax ñu ngi déglu nee suñu yaram day kanam yi mënul ñëpp dinañ ko ci ndax li mu sëriñ Fall mi lay wax te joxoon ñu yàlla bi wax ni dama ko bëgg ku ne gis ni di ñëw ni sëriñ Fall jox ko ñu ñëw ni sëriñ Fall Cheikh Mouhamadou Moustapha bu ngeen déggee daal sëriñ Fall rek ci jiwu ñu ñëw lay wax nag sëñ Cheikh Fall mu sëñ Moustapha Fall ñu gën koo xam te sëñ Cheikh Ndiaye Mbène kàddu yi ñuy yëkkati da koy tàmbalee ñi leen ci yàlla ndax ban joxe ci kat sëñ Fall ñoom dañ ñu ne mu ngi dund baat bi waxaat ko man nga wax man lu ñu waaye nag leeral ko ko dellu ñu ni ko sëriñ Fallou lu mel ma mooy ñu tey rek la ma ko ne moom la ko tey nee ñeneen seetlu yàlla bi nu ngeen ko mën a defee ba mu itam na ngeen moom suñu waxtaan suñu loolu sëriñ sëñ daan soola moo leen kanam kuréel boobu ñu defee ko noonu jiite na si maam Cheikh la sëñ maam Cheikh laa ko waxee maam Cheikh Fall maam ñooy Cheikh ñu gën mu ànd ak ñoom ñi ko mag ñi ko yilif ñi yilif ñu ko wax ne rek ñoom ñeent fii si di jëw muy koy wax sëriñ Mor Ndiaye sëriñ Bouré sëriñ Dame Ndiaye koy wax sëriñ Dame Ndiaye bu baax sëriñ Cheikh Ndoye sëriñ Mbaye Fall daa mel ni ñooñu ci baax maam Cheikh Fall ñooñu nit mu yàlla mu njëkk wax ñooñu nit mu yàlla mu njëkk wax ñooñu nit mu mujj bi

moom ak moom ak moom bëgg na ci la Se a palavra do Jornal bu ko ñu may wax ko ñu tam day mel ni man sama ñu bopp xam naa ko yëg naa ne rek na ma mën a wax rek bokk leen ni may wax rek nee na ma bokk leen ni ma mel waaye man dañ may wax loo rek nee ki may wax loo nag ka koy wax loo nee li mu leen wax yéen rafet leen ci njort ni képp ku teewe bis bi la nga bëgg lepp sëñ bi nee am nga ko né noo ko joxe nak sun borom dina fekk ci loolu né képp ko ca xamné am nga ci dara loy dang-dangi nee ci sa xol la nek né way ku wolu loolu ku wolu loolu sëñ fali lu wax né li nga dajé mom dé né bu wéré a nak nag rajo waay rajo waay rajo waay Moom কল্যাণ